ba ñëpp ŋaan Mame Ndiaye Savon nag moom damay ñaanal xale boobu yàlla na ko yàlla la lafal cat xel yi bàyyi ko fi moom tamit parce que nit koo xamante ne ne nii nit ku mën a def lu rafet la nit ku mën a xool lu rafet mu ko di ko mu di ko def macha allah démb takkal na maman Virgère or bagg or Mame Ndiaye Savon ñëw takkal euh, fànta Mbuub seen or yëkkati nag lu toll ay 3 millions moom Mame Ndiaye Savon maye na ko fa démb waaw ndax parce que dégg naa ñu ne jox na fante bu 2 millions. barke allah ji fante 2 millions yi bokkul. fante boo 2 millions yi bi ñu suba la la. Mhm. la yëkkati 2 millions. may jox ko fante bu jàppale ko ci togg yi. yaa ngi dégg mhm. bokkut ak lim ma lim bi mu fa mayee démb laay wax. Mhm. ëpp man na 3 millions. su ko ëppul bat na ko. fante bu tamit jëmaat ci jëbi gisee. jibi gise maabo macha allah sama sama rakku pendoo gise xale boo xamante ne xale bu baax la xale bu yaru la bu reconnaissant parce que dama naan mm-hmm. euh, euh, kii Amina mm-hmm. àdduna bi nit ku nekk sa nawle mooy sa gaynde la àdduna bi ku la xeeb rek bu yeboo nga xam ne yow man ku ma xeeb dama la yab dëgg la te xale boobu xeebu fanta bu dëgg la jibi gise mm-hmm. dafa baax xam li muy ànd ak nit. parce que góor yooyu dañoo mën seen nit. ànd góor ak jigéen. Mm-hmm. bu yàggee rek ku góor ku góor ki moo ko téye. Mm-hmm. téye bi mooy ci personnalité la koy téye. Mm-hmm. ak ci dignité. parce que góor euh, lu tuuti ngay def rek. nit dootu la nawloo parce que boo nee naa wàccee personnalité ko ku jigéen kii. góor mënul loolu. parce que jigéen yàlla moo ko suturaal. yàlla moo ko teg foo xamante tegu fa nit. lu dëgg. ba jibi gise na téye fantam bu téye bu rafet. saa yu xëyee mu ngi ci fantam boobu bu liggéey jee ba wàcc mu ngi ci fantam boobu yaa ngi dégg mhm. fantam boobu dem yëkkati tey miir junni tereer ko ko mhm. ndax nag téye bu rafet ak nekkin bu rafet mhm. ndax nekkul ci fantam boobu di ko ruutu rek nit ñi nekkul ak fantam boobu di def yëfi manqué teem parce nit ku nekk góor ak jigéen bu kon li ma wax léegi rek bu seen ànd yàggee ku góor ki moo ko téye téye bi mooy lan ci personnalité ak ci dignité parce que nit ku nekk sa nawle mooy sa gaynde yow euh, Mame Walo mhm. doguma la jibi lu ko fant boobu defal dafa des dem bi ko bi bi ma gisee mhm. fant boobu di ko jox mhm. lay naan fi ma tëdd ay waay fant boobu li mu def tey gi su ma ko mënoon baa ma mën a taxaw foofu dinaa ko double jox ko ko dëgg la parce que li ma naan ñooñu noonu rek lañ mën a def buñ ko deful bal day tàkk seen kaw yaay ki na jóg mooy seen yaay Penda Guissé gis nañ ko dafa jooy ba su ay ramata ñëpp xam na ne Penda du tricher du ragal kenn ginnaawam ndax rakk dafa neex parce que rakkam dafa neex. Mm. Pendo mooy koo xam ne macha allah dafa buuf ci kaw mm. rakkam yi mm. macha allah. kenn du leen laal gis ngeen ni mu téye ndayaa nday faatu. daf koo téye parce que nit ñaa ngi naan nday faatu la téye nday faatu karaa la téye. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que karaa la bokkal nday ak baay te nday faatu karaa moom lay sëyal. Mm-hmm. kon donc ku jàppale say jabaru frère. say frère nga jàppale. dëgg la dëgg la gis nañ bi fant boobu yëkkatee 500000 di ko jox. Euh, de euh, jibi ci loxoom lañ ko teg ñu teg ko ci loxoom dafa jooy ba mu jooy parce que li mu jooy xam na ko ndax nee na ko carrément fantam boobu yow xam nga man xam naa mhm. Mame Ndiaye Savon ne ko tey jii te guddi nii nii may xëy yéen mhm. dañoo war a dem ñoom ñëpp dañuy tukki mhm. mu ne ko dañoo bëggoon a yóbbaale jibi mais yow pendoo xam nga man xam naa fanta xam na du dëgg man mii toog xam naa mais doo ko tere loolu moo tax bàyyi ñu fi ñu bàyyi fi jibi ndax jibi mi ji nañu loo xamante ne ni dootu suñu ngor mayituñu ñuy voyager di yóbbu kenn di ko fi bàyyi kon nag lépp lu ñu mëbët ci biir jibi mhm. jibi tamit mébét ko ci ñoom yàlla na ko suñu borom yàlla eggale ci barke Seydina Muhammad mhm. mhm. fantambu yàlla defal ko jàmm la fekk ko cat ndam li nag suñu borom yàlla teg ko ci loxoom ndax nag lim dugg moom tamit macha allah ëpp na un million. waaye ah <laughs> macha allah bokkoo bokk ñu fee de. maanaam boobu daal moom yal na ko suñu borom yàlla may. daal daal ndam ci alaaji fan. ndam li bibis lay ñaan. ah, ah yow da ah, day faatu day faatu sama jabar la. <laughs> ndayaa bu dee sama jabar la sama xarit la. maman Birgé tamit macha allah def na ma misi bu neex. waaye ah. kii nogay karaa. Ndoxoy Kara dama dama Ndoxoy Kara moom maman Virgile la àndaloon. moom la àndal biir Ndoxoy. mais Ndoxoy xanaa amul ko mais xanaa Ndoxoy yeeg boobu macha allah. Ndoxoy li nga jox ma lan la eh, sànca la def. mais xanaa amul ku ma ku ma ku ma toggoon ci kii ceebu keccax. ceebu keccax wala ceebu wala euh, mbaxu sàmm. non kii ma fa togg ceebu yàpp bu am ñebbe. Ah. ak ay yu sew am mbàkke. ah boobu sama plat la waaw moom moo ko togg macha allah togg togg na ceebu yàpp bu rafet bu bu nga xamante ne ceebu yàpp démb la waaye biiju yaay booy joxal ma ndam li rek bébé. ok balaa ñuy jàll foofu noonu. <laughs> fanta bu bëri mi yéen. laa bëgg mu gisee cette belle bi noo leen gisee initiative bi nga xamante moom bisu ngeen moo ko def mu nekk je crois que la deuxième édition ah. Euh, ku la xam ne en tant artiste rawatina côté showbiz souvent diggante du xaw a rafet parce que ku ne dañuy xaw a dawante mais Bijou Ngoné fexe ba regrouper artistes yi jigéen ñi ñu nekk di yendu di def ay togg di partager mu doon genre compétition boo xam ne ni compétition bu seen la noonu nga gisee cette belle initiative de ki xam ne moom mooy Bijou Ngoné li mu def noonu. waaw Bijou Ngoné kon li ma a wax ni daaw da hmm. euh, référence la. dëgg la parce que nit koo xamante ne luy defar lay def. Hmm. daaw hmm. ñu nekkoon ci togg yi. xaaj bi yëpp a xuloo hmm. ñoom ñu boole woon ñoom ñëpp xuloo hmm. mais après avant togg yee jeex ñoom ñëpp juboo du dëgg dëgg ren kase hmm. la fa la loolu amut tak ña fa ñëw Zane Mbaye fa ñëw te du tuddanteeg euh, Maam Ndiaye te jubooguñu te bu soobee yàlla di leen juboo ah yàlla na ko yàlla def billaahi di leen juboo loolu yàlla na ko parce que Zane Mbaye la ma la nga wax loolu ankay parce que xam nga loo gis xam nga démb togg nañ. waaw def nañ ene ci guddi gi. waaw bi ci biir ene bi. FM bi jeexee coow am fa. ci ginnaaw affaire ci TikTok bi yooyu. coow lan la woon. coow li maman Vulgaire. waaw na daa toog nawleem yëpp toog. kër mhm. Bongo. Mhm. damay tudd tur man. nee na Babacar Bongo way ñëpp tudd tur tur te tudd turam. du yoon nag. moom maman Virgère. yoon de. waaw xam naa ne foofu Babacar Bongo dafa xaw a juum. Hmm. ndaxte après bi mu taasoo ba ba commencé waat. Hmm. te wayal na maman Virgère yaa ngi dégg hmm. ci la soo soo dëbb sa ñëwee. di wayal euh, di way di way taasu ba taasu maman Virgère. maman Virgère ñëw yëkkati cent mille francs may ko ko. léegi ci la Zane Mbaye ñëwee daan ne ko maman soo dëbb sa ngir yàlla doo ma ci ñamal. mu wax ko bamtu ko ñaari yoon. waaye daal soo doon daal ko daal ko ci ñamal. bi mu ko ci ñamalee mu taasu. daan ne du ma géwalantu géwél laa moom Zane Mbaye. yaa ngi dégg booba hmm. deretam yëngal na ko. Hmm. ndeysaan te ah, wéet na ba waxul woon lii bal tàkk sax deret moo ko yëngal deret moo ko yëngal. ba pare tiit na la jaxasoo na. Hmm. parce que Zane Mbaye dafay bëgg nit ko man damay bëgg di ko Zane Mbaye tuuti ci benn côté. nit ki lu sa xol lu nekk ci sa xol. na feeñ ci sa kanam. du tricher du tricher. loolu bëgg naa ko ci. Mhm. mais xam nga lan laa ko ci ran ban côté laa koy meree. ban côté tontante bi. xam nga ah, man wax wax tamit. déglu ma rek ah, bi gis ay nit. waaw bu leen yàlla boolee. waaw da bës jees. yow yow parce que am na yu bëri yoo xamante ne nii. dafa mën a ñàkk ci diggante ak maam Ndiaye. parce que Zale Mbaye tey jii bu demee ba àdduna yëpp xam ko. àddina xam maman Virguère ah. àddina xam Nogoy Kara sama jeeg boobu ah. à cause de Mame Ndiaye Savon moo tax bu taxawee ci TikTok bi wax ñaari moo ñu ndax ko dugalaat ko à cause de Mame Ndiaye Savon moo tax du question ko xaalis bi ko Mame Ndiaye Savon doon mbay du dara dafa war a xalaat ne kii mën ak moom sama dit la bu nangu nit ko dugg ci seen diggante. mais Zal la kilifa yaa ngi dégg ma Zal kilifa nag. kilifa la. waaw kilifa li nekk kilifa mooy góor la. góor day sëgg lu bari mu jàll ba mu ñibbee démb ñu ne ko maman Virgière mhm. dalaa toroxal mhm. pourtant maman Virgière toroxalu ko de parce que maa nga fa toroxal maman Virgière gaa jaxasoo na ndax li Babacar way ñëpp te wayu ko mhm. yaa ngi dégg euh, Zal Mbay ñëw taasul ko lu neex moom gis nga ma nit bu ma bu ma nekk ci mbooloo ñu siggi samay naw la yëpp siggi luñ ma su may joxe sama xaas damay xool ke damay ne damay jàkkaarlu Alaaji Mbay di ko bantale li ma am mais boobu al jàpp na ko mu yëkkati lu tolloo 40 000 sànni ko Zal Mbaye. waaw bi mu ko sànnee Zal Mbaye. Mhm. Zal Mbaye tam boobu al bi jàpp na ko mu daal di wane ginnaaw soo de buso ne xale bi faral ma xaalis bi ñu ko fayalee xaas bi soo de buso jël xaas bi ah. te loolu moom maman Virgile doon ko sànni Zal mbay la ko sànni ak lépp ñoo nekk nekk ci al. looy def lu nekk. Hmm. na ko maîtriser dafa am ñoo xam ne amuñu sago. Hmm. lu nekk ci ñoom rek loolu la ñuy wane. dëgg la mais bëgg naa daal bu soobee yàlla yonent bi ak Serigne ci boppam. télé laa koy wax télé daa bëgg déglu ma sànq bi ngeen wax seen seen bopp dama ne teg. <laughs> waaw loolu dëgg la waaw loolu dëgg bi tamit. Zane Mbaye ci boppam <laughs> laa bëgg. Uh-huh. man yàlla dimbali ma ci Uh-huh. ak mboole mu jullit yàlla may ko mu am xolub muñ tuuti yaa ngi dégg mm-hmm. mu ne jàkk maam Ndiaye Savon nag te bañ koo piis ñu ànd ta yàlla tax mm-hmm. man lii laa bëgg jaajëf sama mi ngi noonu maam waalo man foofu li ma ciy dolli mooy yow jege nga maam Ndiaye te xam naa ne ñi koy wax muy dégg macha allah ci nga bokk conseil te Zale Mbaye lii ma gis mu koy def réaction yi muy def ci kii bi yëpp mm-hmm. ci ci internet bi yëpp ku bëgg maam Ndiaye Savon la daf ko bëgg xëy na dafa dem ba te buñ ko ñëgloo mi ñu ngi koy mi xam nga Sénégal bëggul ñaar ñuy ànd. ay ennemi maam Ndiaye Sango dañ cay gaaw a profité. Mhm. pour gën leen a séparer. Mhm. zaal peut-être xale xelu xale din part da mhm. koy xaw a jàpp. mais yéen ñi nga xamante ne si yéen ñëpp yéen a bokk askanu ngéwal yi. te du ngeen seetaan muy ñaaw benn yoon. jàpp leen ci loxo saal mbay ngeen yóbbu ko ba ci magam maam maam Ndiaye Savon ndax ku xam maam Ndiaye Savon. Zal Mbaye euh, ku xam Zal Mbaye. maam Ndiaye Savon est-ce que Zal ñëgul ñëgul. comme loolu laa koy posé te day a. da da ngay da ngay man man Seexul Xaddim waxtaan naa ak moom démb ci buntu bi. Mhm. ma ne ko Zal lii ma gis fii nii tey neexuma mhm. parce que tey jii ku ma ku ma xam ak Amina mhm. ma gisante ak Amina fenn waxuma ak Amina. Hmm. may wax ak genre kii rek Alaaji Mbay rek. waaw dinaa xaw a wéet nag dañuy waxtaan. parce que ñëpp Amina lañ ma xamante hmm. xew ma da caa wéet. Hmm. xam nga tamu wéet. boo ñëwee ci wax ak war a wax ak uh, fukki nit. di wax ak ñaari nit loo fay def. man su ma maay moom la sax lépp lépp lu ma bëgg maman Virgile lu ko neex du ma ñëw ci xew moom. parce que démb ba mu fa ñëwee dañuy waxtaan fekk fa boppam. parce que Sénégal fépp fooy dem fu nekk. na nga fa fekk sa danañ la fa wax nit nit da ngay mat. taxawal matadiwut de. moom nee naa magam moo moom la doon feebar. waaw mu nekkoon ca moo tax yendu si wut. mais xam na foofu la fa xew te moog ayam jigéenam ñoo fa nekk te jubawuñu fan yii yëpp jubawut ak ñoom mu ngi dem ci ñeneen ci ñi nga xamante ne nii ñooñu mu nekkal dañoo xuloo ak moom mu ngi dem ca ñooñu du dëgg. Mm-hmm. te ñoom ñooñu xuloo euh, ñoom Mame Ndiaye Savon mm-hmm. ñoom ñëpp dañuy nekk ci jàmm parce que Mame Bassine Thiam mu ngi fi. di mm-hmm. def lu baax di wax lu baax di dox lu baax nag macha allah. Mm-hmm. kon ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk li ñuy liggéey ak ñoom ñoo bokk showbiz bi. Mm-hmm. ñoom ñëpp dañuy juboo Zale Mbaye rek laa bëgg mu ànd ak xelam. message bi leer na ci ci ak dal. parce que nit ki loolu ak dal mayut. soo ko bëggee lijjante ak xët-xët. dëgg la doo gañe. merci Alaaji dégg nga waxtaan bi je crois que waxu jigéen la mais nag am nga ci mm. kàddu. Mm. <laughs> ah jéggal leen ma. loo laaj na de non non non jéggal non non ah? jéggal leen ma jéggal leen ma. aywa di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne xamante ne mooy benn waxtu doon nañ ma may muy muy une temps mm. mais je crois que on a assez longuement <laughs> discuté ci li nga xamante ne mooy actualité yi nga xamante ni moom moo gën a fës euh, Mawal dañoo dab ci yoon mais macha allah li mu joxe ci ay bal man nii mm-hmm. ça m'a beaucoup satisfait Mawal merci beaucoup. tey nag da ngaa ci moom macha allah. ñu baal nga mm-hmm. tàggatoo Sénégalais <laughs> ñu baal nga tàggatoo Sénégalais. waaw wax nga dëgg waaw wax nga dëgg wax nga dëgg pourtant pré préparé woon naa ko de. waaw bu dee sama laaj laaj may na ma ko mën cee mën cee <laughs> benn image ci waa cinq minutes ah ñu cinq minutes ñu man koo synthétiser en trois personnes sama ma yi mooy euh, comédienne bi nekk ci ñànku. Euh, dafa feebar.